ci tey ji biñ fi dajee ngir waajal euh, màggal gi di ñaanal sëñ Mountakha Bachir euh, mu yàgg fi lool te gën a wér donc doon daje tey pour waxtaan ci wàllu préparation màggal gi ànd ka ak euh, tout le district sanitaire ak tamit la commission santé du comité d'organisation ak le comité technique de surveillance épidémio bi mbokk ren ci organisation màggal ci wàllu campagne chimio prévention euh, wax fa dëgg yàlla amaat nañ si yeneen jéego donc ndax bu njëkk 58 pour cent la woon bi yoon am nañ 62 pour cent donc muy wane nekkoon kon euh, euh, am na ay jéego yoo xam ne dox nañ ko te loolu muy wane rek engagement wu personnel bi yëpp biñ ko àndal te tamit nit ñi di gën a yeewu ci xam njëriñu CPS ci askan globalement satisfaisant wax fa dëgg yàlla globalement satisfaisant am na ay eh, quelques yu des rek te loolu moom moo tax ñu xam ne dañuy yokk euh, sensibilisation bi yée ñi nga xam ne xamaguñu ak ñi nga xam ne peut-être dañoo am ay information yu wóorul yu yu demeewul noonu ba ñëpp ànd xam ne njariñ kese la communauté mouride avec le comité d'organisation am nañ seen commission santé waaye l'État aussi avec tous ses démembrements dafa ànd ak ñoom ba ci euh, en passant par le ministère de la santé la région médicale ba district Touba dispositif bi yëpp dañ ko organiser ba ñu war a mën a xam nu ñuy organiser euh, màggal léegi nag ren li ci bees mooy Covid muy lu bees waaye tamit ñuy sant yàlla ndax it Touba bi ñu commencé jàmmaarloo Covid ak léegi def na juróom-benn weer mu mel ni kon xam nañ ci lu bari yàgg nag Covid mooy feebar boo xam ne kenn. mi kenn mënu wax ne xam na ci lépp waaye au moins euh, euh, xaw nañ ko miin donc ñu am ci lu bari luñ si jàng ba tey ji ñu war a mën avec l'appui de l'État donc du ministère de la santé ak euh, région médicale ñu ànd lëkkaloo teg benn dispositif boo xam ne lépp li ñuy yaakaar ak lépp lu ñu xam ne bu ko defee dina tax nit ñi mën a ñëw màggal si duñ fi indi feebar ñi fi fekkee it fagaru ba duñ leen wàll te it kenn du ñibbi yóbbaale feebar du lu yomb nag waaye ñu ngi taxaw ci organisation ba nga xam ne dinañ def suñu lay kattan avec l'appui de du commu de la commission santé et du commité euh, de surveillance ba li ci war lépp ñu def ko. dafa nekkoon loo xam ne daan am avant même sans Covid mooy euh, chaque poste de santé wala chaque centre de santé dafa doon am ay points médicaux avancé mooy ay yoo xam ne dañ fay yóbbu ay docteurs ay infirmiers ñuy faj. léegi ren nag ak Covid bi il faut ñu soppi doxalin soit dañuy xool ndax poste yooyu dañ koy yokkaat ak euh, renforcer leen si wàllu jumtukaay ba nga xam ne tey jii benn cas su fa demee ñu mën ko saytu jël ko ni ñu ko war a jëlee te du yàq dara ci keneen ki nga xam ne dafa feebar ndax tension wala dafa feebar ndax diabète te bu demee ñu jël donc vraiment di dalal seen xel ne euh, sur instruction euh, du président. du gouvernement, la région, le ministère de la Santé avec la région médicale et le district de Touba sont en train de s'organiser avec l'appui de la communauté pour vraiment créer toutes les conditions pour éviter la propagation de la pandémie.